wetam amul ku ko mën a téye donc moo tax mu nekk combat boo xam ne Sa Thiès rek la c' est le meilleur combat de l' année c' est le combat de l' ko tardé tardé nga lu rëy parce que Reug Reug day ñëw ak doole Sa Thiès day ñëw ak vitesse d' ak doole. combat la boo xam ne a pare physiquement ku si gaaw ku si gën a jàppante bi affaire yooyu xam nga ah, ah, ah. loolu bu amee non nga gis lu rëy que man de mooy sama combat ñu jëm nag si franc Forza Forza bi nga xam ne tey mun naa wax ne c'est le quatrième tigre de Fass tey Gris ko nuyu taxaw Fass ñeme na soxor na violent na lépp bagarreur la remiseur la amul lu Forza mu ne Forza tey am na noo xam ne tey waroon na taxaw tey mooy nekk le le meilleur Sénégal mais gars ko ragal gars yi ñoom mu jël avance am Franc daan barki dem sox ne jox leen ko ko Gaston ne ñëw la Gaston boole la moo tax tey seen face à face amul ko dul dàq day métti Franc moom tamit musul daanu daa gëm ne moom ci ñoom Balla Gaye doon a jëm ci ñoom Bombardier ci ñoom Ama Baldé ci ñoom Eumeu Sène moom dafa gëm ne foofu la teg saison mais pour mu jàll Forza loolu mooy wax nan la koy jàlle Sokh Marley combat bu boo xam ne moom naqaree pronostic Marley day bëree bëree bëre bëri comme sa papa bi dafa mun a bëre mais nit ñi xamaguñ ko événement yii nag moo ko mun a may sens lii sens la si moom mun bëreem nag da ko war a wane kon Sokh Sokh nga xam ne Pikine mu feesal stade arène nationale c'était la première fois le 19 juin 2022 moom ak Franc ñu feesal ko mu jël fa defet waa Pikine dañ ko mere ba nga xam ne bu daane waatee si contre Marley fan la jëm moo tax combat bu c'est un combat indécis mais combat bu neex la li may wax rek en pour terminer na gars yi di cultiver le fair play na gars di cultiver la sportivité làmb sport la amul mbër bu dul bëre ba jeexal te doo daanu loolu yàlla may ko kenn amul club de football buy jouer 38 journée am 38 victoire loolu yàlla may ko kenn même Arsenal je pense moo ko defoon en Angleterre mais depuis boobu gisaatoo ko ko def donc sport dafa am défaite am victoire am nul am sans verdict fan sii di xamee noonu na ko mbër yi tamit di waxtaanee seen kii parce que ja làmb euh, dafa laaj ñuy waxtaanee waxu fair play da ngay xool li xaw Iba Mar Diop keroog bu fa moor doom amoon làmb dinañ ko mës a tëj te loolu ñaanuñu ko yàlla ñun ñëpp si làmb la ñuy dund donc nañu gën ñun sax si di nañu gën di waxtaanee waxu fair play waxu sportivité làmb du guerre làmb du geer làmb du guerre nañu xam loolu na supporter yi xam loolu Balla gay 2 ak ak Modou Lo yi ngay gis ni ay Balla Gaye 2 Boy ñu demee ba amay 60 ans ñoom ñooy ànd ñooy toog nii taxi chaque jour ma gis ay ay ancienne gloire yu bokk te ñoom ñoo doon bëre te dara ñaaw si booy ñaaw Balla Gaye non booy ñaaw Balla Gaye c'est le sommet boobu moom boobu boobu dafa doy waar parce que kii dafa daanoon rakk ji te Balla Balla mbër la moo xam ne de combat ma ñaaw de mu dee moo ko gënal booy ñaaw daan moom mu dee moo gënal booy ñaaw de daan kon lan lay wax de booy ñaaw dootul dugg pi Balla Gaye boobaa dootul dugg Pikine jamais de la vie moo tax combat boobu jaral lu ne Boy Niang 2 moom xam naa dañ ko mës a dee xam naa ne marabo moo ko mës a dee ne yow da ngay daan Balla Gaye 2 ëttal ko rek topp ko rek topp ko rek topp ko rek boobu mu am ko léegi am na ko moo tax combat boobu doy na waar yàlla nañ si yàlla yóbbu jàmm daal le premier janvier ñuy féliciter le promoteur Gaston Mbengue bi def face à face bi parce que face à xam nga kañ la fi gëj am en 2005 la fi gëj am diggante Tyson ak Yékini la woon Lac de Guiers 2 Gris fii lañ ko defee woon en 2005 1er janvier 2006 Yékini daan Yékini daan euh, Yékini daan Tyson Lac euh, Gris Bordeaux doon Lac 1 Lac 1 la woon fii lañ ko defee woon Petit Mbaye moo ko organisé woon donc 16 ans après ñu andiwaat fii ça veut dire que làmb mu ngi dox mais làmb lu tax kii yu mel nii di ko arbitré dañu ragal violence donc dañu moytu violence mais cadre bi amul ko gën a rafet Daniel Sorano demoon na ba suulu ndax Grand Théâtre tey Gaston Mbengue bu amee xel andiwaat ko fi ça ko dire que mu ngi dekkalaat mu ngi dekkalaat Daniel Sorano parce que Daniel Sorano fii mooy cosaan bi Daniel Sorano fii la lépp xewee artiste Sénégal yi nga gis yëpp fii la ñu luqeekoo de Thione Seck de Baaba Maal de Youssou Ndour de ah, Lalo Kéba Dramé ñoom Kiné ñoom Fatou Jëwal ñëpp fii la ñu luqeekoo amul ku luqeekoowul Daniel Sorano Daniel Sorano bi si monument yi war yi Sénégal gën a gën a protégé si la bokk lii maison bi théâtre national Daniel soraano bi waruñu ko seetaan ndeysaan sama grand sama confrère ndem si yàlla Cheikh na Ahmadou Ba xam naa kooku mi RTS bii la nekkoon ndeysaan ku doon véhiculer si si si Daniel Sorano ku ma doon suivre Ahmadou Ba mu ngi dee mu ngi décédé en février 2005 après Ndongolo bi mu gaañoo mu ngi décédé février 2005 ñu ngi ko suuf fii Touba c'était un monument donc Daniel Sorano bi nañ ko gën a sauvegarder promoteurs yi ni ñuy ñëw di organiser fii seen seen i affiche ba nga xam ne parce que bi dafa neex cadre Youssou Ndour fii la loqee ko Baaba Maal fii la loqee ñoom Thione Seck fii la ñu donc lu mel nii bu ko amee état bi tamit da ko war a gën a valoriser joxaat ko cër ba nga xam ne lépp lu xew mën nañ ko ñëw fii di ko organiser donc loolu laa amoon lu may wax di ñaanal ñu jàmm non day explosif am na yeneen combat yoo xam ne tudd ma na am na Siteu Papa Sow ñemal ñu ci Ada Fass Zarko bi ah, Ada Fass Zarko mu nekk xale xale Ada Fass Zarko Ada Fass dafa ñeme Zarko te Ada Fass mbër la moo xam ne ci suufam kenn du ko laal te Zarko da da ko daa bëgg suuf te suufu Ada Fass kenn du ko laal laa ilaha illa Zarko bu juumee ba suuf laal Ada Fass pare na te Zarko loolu rek lay wut mais Zarko bett la c'est une bête bête entraînement la ñeme am fit am doole lu mu tax gis mu taxaw si wetam yaakaar na moo ko mën moo tax combat boobu bokk na si combat yi ma gën a neex tamit comme ni ma Reug Reug Sa Thiès neexee mais Ada Fass Tigre de mooy Mbaye Gueye Ada Fass mooy Tafa Gueye donc Ada Fass nit ñi dañu am yaakaar si moom li may lancé rek mooy combat bi dafa commencé bëri tension commencé bëri coow fu Zarko génnee coow li bëri fu Ada génnee coow li bëri ñu bëgg ko def un Balla Gaye leen supporters yi dal leen moo leen bëggee seen mbër yi gagné ay millions di ngeen di wane fair play pour promoteurs yi am sañ-sañ ñëw tëgg seen i combat parce que Ada Fass avenir la pour ne avenir nag mooy dafa war a ànd ak fair play te promoteur bu ko organiser du am du am tiitaange après donc daal loolu la ñuy xaar euh, si si affiche boobu Zarko attention da ngaa gëm ni yaa mun Ada Fass di ko gëm buñ ñu tëddoon ba yeela ne la Ada Fass mun da ne xanaa kii dafa dof mun nga ko sax dóor xam mais Ada Fass kenn du laal ay tànkam yaa ngi bëreeg der ki gën a nekk der si làmb ji ngay bëreeg du la may dara moo tax combat boobu macha allah. jërëjëf sama gars yi di remercier si yëpp nag di wax ne liggéey bi nañ ko gën a organiser lu ñuy joxe nii. buuxante bi xëccoo bi jarul ku nekk rek na bay waaram te ku nekk di nga mos a da ngay fayeeku lu mu néew mu nekk ñaar dërëm mu nekk juróomi dërëm di am loo yóbbu na gën a rafet nañu gën a am solidarité bu ñu laalee kenn ñëpp jóg bu kenn am manqué leen ñëpp jóg mais da gis léegi si ñu téye kenn sa benn confrère si port bi yow saa nga dem jàppale ko yow da ngay dem rek dugg pour filmer pour looy jaay xam nga loolu tamit rafetul loolu du solidarité il faut mu wane suñu bopp ñun ne benn la ñu corps bi benn la il faut mu wane ko mais affaire défaillant yooyu baaxul si benn liggéey organique boo gis mu amay défaillant toujours day day euh, si ginnaaw lañ jëm donc ñun sit yi ñoo war a booloo ñoo war a nekk benn promoteur bi boobaa duñu yëpp promoteur bi jox Iba Kane bàyyi ma Samba jox ma Samba bàyyi ma Demba donc bu boobaa doo bu ñuy jox nañu joxandoo ñëpp bu ñu a joxandoo ñëpp mhm. ñëpp tee ranger i bu boobaa ñoom ñooñu soxla bien ñun soxla nañ leen parce seen événement dañ siy dund mais ñun tamit bu ñu véhiculé wul seen événement du am ampleur bu mu bëgg li ngeen di def ni promotion ñoom la seen promotion la li ma siy wax dina am ñu ko seetaan seen promotion la donc ñun suñu koor bii dañu gën studio dañu gën a booloo ba lu ñu bëgg dinañ ko am ku nekk dina am juróomi dërëmam boo xam ne YouTube dina ko fay mu dem yóbbul ko këram donc jërëjëf sama gars merci sama gars yi